ata ak ya toolim bee woor su ngeen ma dégloo tey ma dellu yeete ndax ñi nelaw seen xol yi dellu sil wujuud wal xidam xad wajaba law lana dunil xidam subhaana sil baqaa ci ba tey gëstu bi nga xam ne ñu ngi koy amal tey fii ci ndar ànd ko itam ak waa kuréel gi nga xam ne ñooy saytu fàttaliku bis bi fi Serigne Touba julli woon ci bureau gouverneur ñu ñëw na tey ci barab bu am solo itam boo xamante ni bi yaakaar naa kenn mënut nett nettali taarixu sëriñ bi fii ci ndar te tuddoo ko. waaw ah, jërëjëf sëriñ Mor fii moom it euh, bokk na ci béréb yi ñu koy wax toolu buur nga xam ne fi lañ boole woon ak sëriñ bi ak gaynde gi nga xam ne loolu moom day nekk day dafa nekk lu wér a du du lu ñuy waxantu yooyu nga xam ne foofu euh, booba ñoom ci jamono bu nekk rek ñu ngi pexe lu fi tax sëriñ bi mën fee jóge nekkoon seen yitte ndax jëkke wuñ ko fi jëkk nañu dugal ñett waaye mel ñooñu la gaynde gi fadd sëriñ bi it am na ci mag ñi ku mu doon waxtaanal bis na ko man day bañ ma fa tàbbalee sax yéex na maa xam ne gay na nga fa ah sëñ bi nee na nee na yeex naa koo seetlu daal daan na ko ndax béréb boobee de yonent bi keroog dara na ma ci dënnam na ma sama xarit nga ah nee na loolee nag sedd na sama xol ba ba ma gestoo laa door a xam ne ndaka gay na fi te loolu dana dëppoo wa man takun bi rasulillahi nusratuhu in talxul usdu fi ajamihi muhtalin nga xam ne kon it mooy képp koo xam ne nii yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy seen dimbal moo lay jàppale moo lay wétali boo daje woon a gaynde ca digg mën nit gaynde ga dana nooy waaw ko nga xam ne kon loolu day wone wa man takun bi rasulillahi xidmatuhu mu a sidq wal ixlaasi wal xasan falaa yaqaafu wala yarjul wara zamana idil wiqaayat tuxnihi anil kinani mooy képp koo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rek ngay nga ànd ci akuk dëggal akuk selal falaa yaqaafu bu mu ragal wala yarju bu mu yaakaar pour ragal ay lor bul yaakaar kenn ku dul yàlla ndax ne na kaaraangeeg yàlla dana la bàyyi ko ci wet gu nekk ñëw gunge la wéttali si la kon béréb bi it bokk na ci béréb yooyu nga xam ne ñii ñëw ndar di màggal si war nañ di di ko di bu baax di ko gëstu ndax da ngay ñu ne boole woon nañu suñ tubaab béréb sàngam euh, gaynde ngir jublu ci ko lor waaye gis nga la mujj lépp waxal na ko boppam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam senge ko aar ko ci ci fànn yëpp gunge ko wéttali ko yégal ko ne ko sama xarit nga sama